xam nga nit ñi dañoo dem dayoo. heure lekk bu changé. faaw heure tëdd du ku daan ndékki añ nga génnee añ ak ndékki. mais nan ngay lekkee fajar ba suur dem tëddi nelaw amul wér-gu-yaram amul hygiène. te ku yeewu guddi gi lekk naa fi la mais foog nga nelaw bëccëg gi. dëgg la nelaw bëccëg nag bu amul dérangement moo dàq bu guddi. léegi bu nit ki tëddee di nelaw yàlla wërsëgal ko mu am kàttan ak wér-gu-yaram nelaw bañ tàpp ko na ko kay dog ban imaam ak ban ustaas moo sañ ne amul koor ak ban aaya nga taxaw. kenn am nga koor. Hmm. donc beneen ba ca des mooy bu ñu ne nelaw du ko du ko tëdd nelaw. Hmm. nit tëdd na ci la xajar mu sangu dem. Hmm. nit sangoo ay xob nelaw ba nit ñu doon ko tàpp yee ko. nelaw wér-gu-yaram la xel mu dal la waaye wërsëg la mais li bon mooy naan lu la nelawloo ku ko def amoo koor parce que yaa ànd ci nelaw yi mm-hmm. Cheikh Ibrahima Niass dafa dem ñuy opérer bëtam à l'âge de soixante-quinze ans mm-hmm. ñu ne ko dañ lay pikiir nga nelaw mu ne moom àndut ci ñu ne ko lu tax mu ne mu ngi ragal mu ànd ci nelaw yoo xam ne moo ci d'accord waxtu julli jot a jullit waxul sax koor mu ne docteur bi kaa ñu signé benn pacte mm-hmm. opérel suma bët yi te bu ma pikiir bu julli jotee ma mën a julli te du ma xef mhm. docteur bi nangu ñu opéré ba tamit a xefut ngir bëgg lislaam moo tax ñu tuddee ko seexu lislaam donc ku mel noonu mhm. euh, euh, daf lay wan ka soixante-quinze ans mhm. kon yow nan ngay voler ba fajar te di nelaw loolu du xëdd nelaw nangam yeewu de loolu forcé nelaw nelaw la ngir ragal koor amoo koor maanaam ànd ci nelaw yi ak nelaw ñëw ci yow du benn moo tax wàllu yàlla duñ dem fekki nelaw fekki nelaw mooy summeeku sol sa kawar sol sa pyjama lal sa ngegenaay yow yaa dem pour fekki nelaw mm. non wàllu yu duñ def loolu mm. dañuy toog di yaanu di jàngal xuraan ba nelaw ñëw ñu nelaw booboo baax nelaw fekk si la nelaw mooy ñëw mais pas seet sa ji nelaw mm-hmm. mm. donc tey ku am kàttanu tëdd xëdd tëdd di nelaw ba timis man de ci suma njàng man ñu aaya wala hadis bu ko xaraamal. sànq am na lu ci doon jàngale xaraamal yow la neex na nga xam ne sa affaire la mais loolu du lislaam. am na loo ci doon jàngale boo doon nelaw bëccëgu koor mu ne. waa dégg naa ko dégg naa ko. li mu doon wax yaay mu ne boo nelawee bëccëgu koor nga gént. waa dama ma teg ci ma ne. Euh, su fekkee ne da nga concentré sa téléphone. Mhm. wala nga am jigéen ju jonge mën a rouler air. topp la bànneex bi yóbbu la ba sperme génn. 60 mhm. jours ngay fay. ñaari weer. ñaari weer consécutif. Mhm. boo oroon 49 dagg ko da ngay commencé waat beneen. mais boo génnee te tayoo ko nag. waaye nag nga tëdd di nelaw. yàlla mi moom jox nga may indil la bu rafet. nga gént def ca sa aajo ba mu faju hmm. am nga koor am nga daal. <laughs> waaye li ma ci <laughs> jaaxal mooy que ni bëccëgu weeru koor dañ cee taamu li nga xamante ni nii di tudd yàlla. Hmm. même boo mënta tudd yàlla sax di jël sa kurus di wax astafirullah. Hmm. ba pare di tuub. bëri li nga xamante ni da koy da koy as. beneen bi ñuy def. <laughs> ay salaatu ala nabi ay salaatu ala nabi léegi lu mel noonu boo nekkee 24 heures sur 24 di xëy rek daal di ndogu amul sens. non xam nga amul sens ak am na sens mu ngi mel ni examen rek ku am cinquante passé nga. Mhm. mais nag d'office dafa am lu koy liggéey. Mhm. ku bëgg d'office yeewul jàngal quran jàngal xasida demal ci daara mais pour jàll examen bi moom yéeneel or rek am nga woor mais koor mhm. dafa am lu koy yàq. am luy yokk taar bi mm-hmm. mais ku yàlla may nga mën a xëdd tëdd mm-hmm. dem ba soxna si tàpp la nga ñëw yeewu ñee naa la de am nga